أتيت euh, Prince sama rakk la sama xarit la en plus ñun ñoo bokkoon école Jean-Jacques fii mu nekk nit ku baax aussi voilà ah man moom wax dëgg yàlla baax rek laa ko xamal mu nekk nit koo xamante ni ku jox nit cër ku mën a sonn ci nit aussi loo ndaw ndaw ndaw dina la jox sa cër man moom ma sœur rek la ma doon wax fu ma romb bàyyi ay itam kafak man reetaan na man su ma dugalee dara statut mu commentaire kafak man reetaan nekk nit ku ñàkk ki ñaan loo xam te koo xamante ne lu mu yéene boppam rek la yéene ñëpp ak Serigne Touba waaye moom dëgg la moom parce que nit ñi dama doon dégg bu baax ñu koy wax naan que ni waxtu du ko raw te da daan teel a jóg dem julli ji ci jumaa jeg yooyu noonu nag wax dëgg yàlla xale bu teel a am ambition la woon. Mhm. Mhm. xanaa baax rek baax rek nañ mën a seede ci moom parce que man moom ñoo bokk milieu bi da way may way et tout amoon nañ ay projets yu ñu entamé woon sax ba wax que ni man ak moom dañuy def ay featuring ak lépp amoon na yu bari daal yoo xamante ni amoon nañ yéene pour def ko daal mais yàlla moom bu soxlaa ñëppay ñàkk franchement li ko dañ koy ñaanal fi mu jugee gënal ko fi mu jëm gënal ko fuuf fii mu jugee incha allah yéen cat moom dafa sew parce que ndegam ñi nga xamante ni sax ñoom gisuñu leen fenn feeñu ñu duñu ay artistes duñu ay dara ndegam ñooñu rek cat leen di top masamala ñun ñu ñu nekk ci milieu showbiz bi du coup dañuy gën a moytu rek. gën a xamaat fi ñuy teg suñu tànk parce que cat moom wax dëgg yàlla dafa sew te mooy léegi moom nit ñi ñu ngi ko doon dégg si kilibam bi nit ñi naan dafa takk jabar et dafa teel a takk jabar xam nga rek coow yooyu daal yaa ma gën xam doo mën a mucc. Mhm. man ak moom whatsapp nañ mujjee déggante waaw ma feebar et ci ko mu ne ma ma sœur dara warul laa dal affaire yooyu. am na aussi benn numéro artiste bu ma ko bu mu ci woon ma laaj ko ko mu ne ma xaaral ma yónnee numéro yónnee ma numéro ba pare naan ma ma sœur musique bi mooy loolu da ngay foncer rek yàlla baax na parce que art moom kenn mu ko ñun ñëpp ko moom tey jii mën nga seeteeg mën naa seeteeg keneen keneen mën seeteeg gëmal sa bopp day baax incha allah contacter ko ngeen déggante nit ku baax na loolu la ma hmm. dese bi dama dama doon nelaw après sama rak bu jigéen yee ma ne ma am ga dëj de ma ne ko ba jàmmal affaire yi ma jug toog waxuma sax kan la daf ma woon daf ma jox téléphone bi rek ma xool foto ma gis prince si muy lu garaawaay ma nekk suula le choc franchement affaire bi nekk lu ma bett may xalaat suñu wax yi doon wax affaire yooyu noonu mu bett ma lool. Mhm. dama dama man daal dama yéemu bi ma ko waxee dama yéemu ak Serigne Touba parce que. dafa nekk xale daal ba pare nekk xale boo xam te ne dafa am ambition parce que mënoon na ne man xale laa aw ma benn âge bi ma toog jàpp sax mais dafay à chaque fois day jëm di fight ñu koy invité ay tele muy dem di xamante ak ay artistes ak yooyu doon dama xalaat que ni ak moom avenir am mooy lool daal ma xam ne daal yàlla kenn la rek. Mhm. li ma gënoon marqué ci moom mooy ñàkk ki ñaanam parce que bu ko neexoon mu ne xam naa artist bi. duma la ko présenté wala man doy na ma rek pour man mu mën ma jàppale mais amul artist bu mu xamanteel te doo ko ne damaa bëgg a xamanteeg diw mu la koy xañ barki Serigne Touba yàlla rek moo tax may wax ak ku mu mënti xam ci àdduna ku koy jàppale si aar boo ko waxee ki diw kat damaa bëgg nga xamale maa moo da leen di xamale ba pare dem ci moom ne ko su ma sañoon nga jàppale ko parce que sama nit la. Mm-hmm. metti na lool moom parce que ñàkk moom dafa metti ndegam xar sax bu miinee seen kër nga ñàkk ko sax day metti ma sama laa doomu aadama mais yàlla moom bu soxlaa ñëppay ñàkk te ndegam day xëy ray famille lëmb koo xam te ni yaay papa du bàyyi kenn kon moom mooy buur mooy borom mooy xool ko neex rek mu dogal kon nag day metti nag parce ñàkk nii dafa metti mais da ngay mun xam ne rek moo la ko joxoon moo ko jëlaat. Mhm. Mhm. Oh, barki Serigne Touba waaw nañ jël exemple ci moom rek parce que moom baax rek moo am solo ndax milieu bi moom boo ci nekkee ku nekk da ngay bay sa waar parce que aar moom comme marché bu xëyee ñëppay lal ku nekk balaa wàcc da nga jël sa war wërsëg dem kon nag ñu gën a yaatal xol gën a delloo ak lu musique neex musique neex musique neex ñu gën a góor góorgóorlu ci julli mi di julli di jàpp di julli di jaamu yàlla ci la bokk daal parce que bàmmeel moom loo fa demul rek doo ko fa fekk. Mhm. dafa metti dafa metti parce que koo xas ba miin sekk ak moom jàmm kafoore nga xam ni kii dootoo ko gisati abadan day xaw a metti daal gis na lool. Mhm. waaw xam nga rek nit moom bu nu bu la xasee ba xam moom boo génnee àddina ku nekk da ngay joxe sa version parce que man dégg naa sax ay dëj bi Mbuur laa dëj bi Fatick laa ku nekk da ngay joxe sa version mais xamuñu ko ay yooyu noonu ñuy wax waxi ñaaw yooyu moom wax dëgg yàlla amu si mort naturel la yàlla moo ko bind moo ko soxla moo ko jël yóbbu daal. manqué na ma trop <laughs> ah sama nit la moom wax dëgg yàlla mais nañ muñ rek. <laughs>